la war a mel. soo amee yaay. Ah, da ngay baax. da ngay baax da ngay baax. di ko mën sax bu baax mën sax. maire bi nee na nii rek la Cheikh mën a mel. ah dégg nga ah, oui tout à fait. waaw nii rek la Cheikh mën a mel. jërëjëf yaay booy. Cheikh nee na kontaan na te nga ñaanal ko. mooy maire bi. yaay ñaan rek mu jël. kër gi 100 pour 100 samay di a ba ma jógee ba tey jii mosu ñu ba tey jii lii am. jërëjëf ñu bu baa ba lii am tey jii kon jàkkaar naa ne ñun benn njaboot la. sant yàlla dañ koy sant moo xam bébé bu mu am ci yow yal na ko yàlla yeggal mu jël bébé bi rek mooy bébé bi ngeen sotti mu jël mairie bi rek kay bébé bi voté leen mu jël mairie bi loolu rek mooy bébé bi passé na Cheikh toog ci mairie bi rek loolu rek yàlla dese fii luy xew suñu kër muy takk muy ngénte muy safar bu mënti doon yaa jiitu ñëpp yow quatre heures du matin su mu jotee premier noonu yaa ngi jaar waay boo manqué waxtu bu nit xewee yaa ngi taxaw ñun suñu bopp ni ñuy ñaanalee waaye ñun tam dañ leen ñaanal ni ñu ni ñu gëmee ni mën nañu gane ni ñu ko gëmee noonu la ñu gëm ne gëmee ni bu si ñaan xam du sotti waaw loolu moom gëm nañ ko. tax euh, nitu yàlla bu ñu gis. dañ fa dem mu ñaanal. bu ñu dugg si koñ bi mukk génn te ñu fi. nga ñaanal sa ñaan dina ñu doy. sa ñaan duñ ko amee incha allah lu ñu yaakaar naa dina am. parce que dëgg naa lu rafet yëpp lu waa koñ bi wax si yow. lépp. ñu ngi gërëm di la di la sant. rek moo taxoon ñu ñëw fi. jërëjëf. kontaan naa bu a baax incha allah danañ ci def ñaan. incha allah danañ ci jàpp de boo soobee. incha allah incha allah jërëjëf jërëjëf. kon ñu dem Fatiha Salatul Fatiha. nee na ñu def Fatiha Salatul Fatiha. yàlla def juróom-ñeenti yoon. am kóllëre la te duñ ko demee depuis 2002 pratiquement man ba ma dugg si politique xaw ma woon moom mu jógee moom mu jógee jeunesse libérale. loolu tax ba ñoom day am su duggee si politique Seydou dugg si politique. man bàyyiwuma mais dama nekk en retrait parce que mënu ma nekk liggéey ba retraité di ñëw di xëccoo ay poste ma ne ko ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm da soobee yàlla suñu changement Médina yow lañ ci yaakaar ñun ay jeunes lañ dofuñu xam nañ nga xew te bëgg nañ suñu Médina changé te ñun yow lañ ci yaakaar yaa ñu ko changé monsieur le maire waaw yàgg nañ ci Médina suñu Médina gi ni meloon la mel ba tey lu dul agression ak coono nañu nekkee te ñun am nañ si yow yaakaar baax yal na la yàlla may mairie bi ci barke yonent bi te ñun suñu kàttan yi nii la 23 la ñuy xaar ñu xëy teel a dem ba ko ñëw toog te bu soobee yàlla yàlla loolu nag moo koy fal xëy rek dem carte doon voté waxuñu ay wax ñun voté lañ Cheikh euh, yaa ngi pratiquement à la fin de porte à porte yi ngay faral di def ñu ngi ci dernière tourmente yi waaye euh, sa sa sa ba fi nga toll nii. Euh, ban ban jàngat nga nga nga mën a nga mën a andi ci mbir mi. mais li ma leen waxoon démb wax leen ko barki démb rek fi am aujourd'hui li ma gis biir Médina c'est de l'espoir et de l'espérance nit ñi dafa mel dañ def benn say topp ñu topp suñu projet topp suñu programme gëm ni Médina mën na changer xar kanamam Médina mën na changer si komam mën na changer si culture ci sport ak si lépp ñu jëbbal leen benn programme en sept axes yoo xam loolu yëpp ëmb na ko ñu gis ko saytu ko xam ne ñoo leen doy fi ñu jaar gis ngeen mbooloo mi ñu topp yéen journaliste seen bopp yéen sax da ngeen waaru yenn saa man mii mu jaaxal ma lool xaw moon ni nit ñi foofu la ñu toll si mbir mi waaye waa Médina taxaw nañu takku nañu te le 23 incha allah di ngeen gis surprise bu mag si biir urne waa doo dem doo dem tey tontuwoo ci question bi Bamba Fall démb ci TFM gis nañ ko mu ne. à ah, 60 pour cent lay gagné ki topp ci ginnaawam amee 30 pour cent yow loo koy tontu. mais xam nga ñoom c'est c'est la vieille école politique. ñoom seen spécialité mooy intoxication <laughs> mais loolu xam nga ni loolu taxawul loolu loolu loolu taxawul ñun euh, du ñu dem si làmb ji di fëgg suñu dënn wala di bàqu ndax loolu tëkku la te duñu duñu tëkku yàlla duñ ko tëkku yàlla mooy dogal moom mooy xam ki mu namm mu nekk maire Medina dina ko nekk waaye ñun jàpp nañu. ne ñun mën nañoo gagné. incha ndax gis nañu sondage ay sondage yu wóor nag du ay nekk fii di waxantu ay 60 pour cent 50 pour cent mais buy jàll weddiwul ñun on va les battre à plate couture sans appel ça c'est clair net et précis yéen seen bopp de façon empirique ngeen dugg ngeen si quartier yi def ngeen seen i sondage yéen journalistes yi xool ngeen nit ñi xam ngeen ni le vent du changement est là et que la Midina va changer le 23. Le 24, la Midina aura un nouvel maire qui s'appellera Charabé Tidjanba. Et il y aura un nouveau maire de la ville qui va s'appeler Abdoulaye Diouf Sarr. waaye di gërëm waa Guy salaan yëpp li ñu gisugum de dal na suñu xel da yéex a tàmbali waaye gisee nit ñi ni ñu farloo am pas-pas si mbir mi may gërëm Pape Cheikh et toute l' équipe d' organisation ñoom Mohamed ñoom Laye Wele ñoom ñëpp di gërëm Ousmane Ndiaye mi ñu topp di ñu dimbali di gërëm xale yëpp vraiment ñëpp ñu ngi leen di naa dinaa ko def après ma commencé si loolu rek Pape Dia ma bàyyi la nga sànni si kàddu. li ma ci wax lu tuuti la tey jii boo xoolee les douze quartiers de la Médina fu Cheikh Ahmed Tidiane Ba le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar génn kër yëpp dañuy génn ànd ak moom. def nañu proximité dans tous les quartiers de la Médina yéen journaliste seen bopp ni ko Cheikh Ahmed Tidiane Ba le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar waxee mu ne. yéen seen bopp mu gën def estimation à la Médina xool te ji seen bopp kan moo gën a jege victoire ak ku gën a jege defet xam ngeen ne actuellement sondage yu wóor yu leer yi mujjee génn c'était à 61 virgule 28 mais diggante boobu ak tey jii def na plus de 12 jours et les choses commencent à changer et ça commence à changer beaucoup dans le camp de Cheikh Ahmed Tidiane Ba te jii waa Médina ñoo soxla un nouveau maire ñoom ñoo soxla un changement les Médinois dañu sonn xamuñu maire lan mooy programme am lan mooy projet bi fi nekkoon mais l'ancien maire de la Médina mais n'a pas de projet n'a pas de programme man conseil municipal la nekk ak moom foofu depuis 2014 amul benn programme bu mu mun a taxaw taxaw fii ne programme bi sama programme la amul fii un projet bu mun a teg fii parce que j'étais dans le même conseil que lui c'est un maire ignare et nul Médina wàccu nañ ko bàyyi nañ ko lépp lu ñu bëgg rek mooy qu'il dégage le 23 incha allah ñu fal suñu nouveau maire Ahmed Tidiane Ba. ma si ma si yokk ndax dama fàttu woon sànq li Pape Ja mooy wax waxu dëgg ñun de nee naa leen ñun ab projet la ñu laaj ñoom dañ leen laaj ah, projet dañ leen laaj projet mais daal leen aussi bilan ah. waaye li ma jaaxal huit ans après bilan bi en une semaine lañ ko bëgg a def cest à que une semaine ñu defee ne waa Médina vraiment seen xel matul ñu leen di inaugurer ay benn benn benn pukus naan leen mooy <laughs> mooy mooy kii social ak yu kenn xamul. dafa te loolu waa bi nawet dinañ ko nangu. loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg li may wax gars yi c'est trop tard.